Mambusa Jaara ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaaram eh, ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel ci seen télévision Touba TV fépp fu ngeen mënti nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sant leen gërëm di leen nuyoo fi nga xam ne nag moom moo di ci Poroxaan dëkk soxna Maam Jaara Buso Mariama jaaratula ci màggalu Porokhane édition 2019 gis ngeen ni ñu leen di toppal li nga xam ne moom moo jëm ci programme bi euh, ci lu jëm ci bis bu am solo bi lee ci taarixu yoonu murit waaye xam ngeen ni màggal gi euh, sunna la jàng alxuraan jàng xasida Euh, waxtaane li nga xam ne moom moo di ay jikko yu baax waxtaan tam li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum diine mais dafa am benn aspect boo xam ne ni lu jëm ci aspect culturel bi la maanaam ci lu jëm ci wàllum caada waaye jëm ci taaral bis bi ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum xam-xam loolu nag moom moo tax ba euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di comité d'organisation bi gàlloo lu jëm ci saytu li nga xam ne moom moo di màggal gi dafa am ay commission culturelle waaye tam am ay commission yoo xamante ne ni dañoo gàlloo lu jëm ci wàllum waaye itam jox ko ci pàcc bu ama am solo euh, ñoo ngi fii nag fi nga xam ne moom moo di ci euh, exposition bi nga xam ne nii euh, fondation Soxna Diarra Bousso def nañu ko fii exposé fi li nga xam ne ay tableau yu am solo ay tableau yu symbolique yoo xam ne nii képp koo xam ne nii gis nga ko di nga gis li nga xam ne moom moo di jàngat bu am solo boo xam ne nii mënees na ko cee def maa ngi taxaw nag ki nga xam ne moom moo di jëwriñu exposition bi di Serigne wàdd Euh, xam naa laataa ñuy dugg di xool tableau yi ak muy expliquer li nga xam ne signification bi ak euh, fan lañ ko defaree ma koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñu ngi seetaan. salaamaaleykum mbokk spectateurs yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ko si nekk sa tur ak sa san euh, te fas yéene ànd ak soxna si. Ndiaye soxna si njaay voilà pour euh, montrer ko un peu aspect euh, tableau yi maanaam ci yoonu Mouride. waaw bii nii foofu la ñu commencé ou bien fii waaw mën nañ commencé fii kon euh, Ousin nga expliquer ñu un peu signification tableau bi man am naa ci ab jàngat mais xam naa yow comme yaa ko defar wala. non defaruma ko man cest à man may piloter expo exposition bi rek voilà. tableau yi ñan ñoo ko defar. bii moom ki ñuy wax Mbaye Balla Kébé moo ko defar voilà. depuis kañ la ko defar. bon bi mu ko defaree nag euh, xaw na yàgg tuuti voilà. mais signification tableau bi lan lay signifier. waaw xam nga ab art moom dafa nekk loo xam ne ni ku nekk ak euh, bi nga koy jox wante euh, jàpp naa ni bon moom li mu ci jublu daf won na rek maanaam lépp ci wàllu diine maanaam góor gi ni mu nu muy sawee maanaam ndongo soxna maam jaara yi. waaw ñoom lay euh, maanaam wan ne li nga xamante ni moom mooy euh, njëriñu njàngum alxuraan mm-hmm. voilà. Mm-hmm. maanaam daal sëriñ bi dafa toog yor téere bi soxna yi nekk ci ginnaawam mu leen di sali nga xam ne moom moo di euh, leçon yi. mooy moo leen di waa mooy njàngum njàngaleeb mm-hmm. diine. plus particulièrement njàngaleeb Serigne Touba. gis nañ tamit soxna yi ñu def ni jigéenu lislaam war a def gis tamit góor gi sol solu murit magu murit <laughs> waaw loolu comme maanaam sax euh, ku góor ki moom euh, boo ko xoolee ab sëriñ dëgg la waaw soxna yi tamit defe naa jullit euh, lii royukaay la lépp dafay wane ne tamit jullit lii mooy colinam ak leneen noo mënti colo lii mooy colinu jullit waaw loolu la ci bit ci euh, kii bi la daal ça vaut mille daanaka kenn ku nekk ku nekk euh, ni nga xamante ne noonu nga ko gisee parce que xam nga tableau d'art moom dafa nekk loo xamante ni ki ko defar mën na la wax ne lii la yow mi koy gis it mën na la am ci beneen euh, ah, beneen gis-gis bu bees voilà bu ñu jógee ci boobu ban tableau nga ñuy nga ñuy expliquer bi parce que voilà bon tableau bi tamit daf lay won bon pensée d'un talibé mouride ou bien quand même benn si benn benn doomu aadama maanaam euh, Cheikhul Khadim la lay woon euh, apparemment yaa ngi ko gis na le kaala gi voilà yaa ngi gis euh, Cheikhul Khadim yaa ngi gis kaala gi donc mu lay woon ne nit ki mi ngi pensé par exemple di wax ne kenn xamul kii lu mu doon Sëriñ Touba kenn xamul lu mu doon c'est-à-dire nu ne la koy xalaatee maanaam dekk dina ko xalaat ci wàllu àdduna wàllu àllaaxira xam nga donc tableau boo xam ne mille questions daal yoo xam ne mi ngi ne mi ngi englobé si biir tableau bi la. voilà c' est voilà voilà ku nekk. bii euh, bii moom ki ko defar euh, même chose même euh, artiste moo ko defar voilà. moo defar moo defar ñaari tableau yi lépp ci njàngaleem Serigne Touba génne gu ko ba léegi. moo ci topp. ci kanam si bi tamit moom it tamit daf lay toujours li nga xamante ni moom mooy soxna ak njabootam. voilà toujours mi ngi koy ñaax si euh, naka la mën a gën a góor góorloo ci wàllu àddunaam te li defe naa àdduna li koy defar en général njàng la que ça soit njàngum nasaraan ak njàngu lu mu mënti doon waaye moom mi ngi koy ñaax si ko xamal ne ko tey pour nga mën a doon ëllëg ku juy joxañ ak yooyu lenn rek moo la war mooy nga jàng léegi nag pas yooyu la koy premier pas am yooyu la koy euh, won maanaam di ko ci gën a ñaax voilà même boo xoolee soxna si boo xoolee xoolinam bis muy xool doom ji bëtu yërmande la ak pensée aussi est-ce que loolu muy jéem dina am wala du am mais loolu mbiru yàlla la daal voilà c'est ça tamit gis naa ci benn jàngat que ni euh, éducation doom bu góor du que ni waajur bu góor bi rek moom moo ci war a concentré wu mais jigéen ji tamit am na ci solo. particulier effectivement parce que éducation moom euh, defe naa ne boo doonee waajur rek que ça soit ku gun ku nga nekk ku góor ki wala ku jigéen ki ñëpp la war. voilà parce que defe naa ne doom bu baaxee baayam la baaxal ndeyam la baaxal donc éducation bi euh, ñoom ñaar ñëpp la war ñoom ñaar ñëpp la war. kon. alors bi tamit euh, moom tamit daf lay won euh, toujours ci wàllu l'islam lay doon ah, plus particulièrement mbalaan mi moom benn mbalaan la moo xam ne dañ ko teg ay jullit wër ko parce que du ma ne mbalaanu wasifa parce que jigéen du ñëw ci wasifa voilà donc mbalaan la moo xam ne ay jullit ko wër. si li nga xam ne bit bi leen fi indi. ñeneen ñi tamit euh, nekk ci seen wàllu àdduna ak di xalaat yeneen ak yeneen wante ci yërmande yàlla dalay woon tamit boo xoolee bleu bi ni mu wëree kii bi tableau bi dalay woon ne euh, yërmande yàlla maanaam ñi nga xam ne sax ñoom ñu ngi sellal kës néew si loolu yàlla mën ñoom ñëpp la baaxee voilà wàcceel leen yërmande ci même ñi sellalul daal. parce intention bi rek moo am solo quoi intention bi nga xam ne ñoo nekk ci jëm ci suñu borom ak ñi nga xam ne àdduna leen a ñor ñi jëm ci suñu borom mën na leen a ñor di ci dugal leen si yërmande exactement voilà loolu mooy euh, bitu tableau bi. Hmm. voilà c'est ça. mu nekk lu am solo moom tamit même ki defar ñaar yi. moom moo defar tableau bi waaw moo defar. xam bon tableau bii tamit moom euh, allahu akbar la donc euh, dalay woon yàlla ak jumaa Touba bi niñ ko mélangé si biir moom moom tableau d'art la quoi waaw d'art islamique la quoi donc euh, voilà ku nekk ak gis-gis bu ñu si am mais juma Touba la ak juróomi sooro yi nga xam ne ne moom la fi doomu Serigne Touba yi bàyyi voilà donc loolu rek lay lay jàngale. gis naa tam beneen ci suuf bu def benn taalibe yor potam. effectivement parce que bi yor taal def taalu bi yor potam nii euh, dafay am euh, maanaam daf lay won ñaari njàngale. xam nga ñu ngi jóge si tableau bi nga xam ne ne moom la soxna bam da lay won soxna maam jaare yi ñi ngi fi nekk mais kii mën naa ko woowee plus particulièrement taalibe Ndakaaru quoi <laughs> waaw parce que taalibe bi maanaam moom toujours gis nga ko dafa nekk ci ginnaaw ay barrière ay barreau donc dafay euh, créer benn blocage. xam nga voilà poser la question que nii est-ce que li taxoon ay waajuram yóbbal yónni ko ca daara ja ndax mi ngi koy defal def ko mais fii tamit da ngay xa da ngay wax da wax ne la euh, njàngam yu si ëpp léegi maanaam ak taalibe bi ñu xam ne ñu nekk ci euh, dans les rues voilà que prison la ñu nekk parce que au lieu ñu dem jàngi mais leneen la ñuy gën a tal maanaam utum xaalis ak. Euh, xeet yu demee noonu. blocage bi moom mooy euh, moo andi ñu def ci. effectivement blocage ba mooy wane ne ak ñu def ci baro yi ba pare tamit c'est des questions que parce que koo gis naan kii lan lay def si ginnaaw baro yi maa ngi da nga demoon pour xam-xam mais pratiquement dafa ne dañ la tëj kaso. dafa mel dañ la tëj kaso parce que la taxoon ngay dem di ko kii librement defuloo ko mais donc gëmloo nañ ne leneen loo xam ne ne ci ginnaaw loolu nga nekk. voilà soxna euh, tableau bi tamit moom it euh, dafa nekk tableau bi nga xamante ni. Euh, toujours comme euh, si màggalu Porokhane la ñu nekk thème bi tamit euh, ci màggalu Porokhane lay wax donc taali bi ndongo yi nga gis nii donc dañu nekk ñoom tamit di jàng alxuraan mais leeru maam jaara di leen alimenter voilà maanaam di ressourcer wu si leeru maam jaara di leen moo leen di gën a jox force saa ñu xalaatee parce que lu tax ñoom ñëpp ay jaaratu ay jaaratu laa la ñu donc bu ñu xalaatee bëgg a mel ni seen turandoo rek xam nga daf leen di gën a may force pour que am gën a am détermination si euh, li nga xam ne moom la ñuy jàng. plus teen bi nekk nii ci. voilà lii tamit da lay woon teelu maam jaara fii tamit mooy euh, barabu maam jaara waaw tableau bi moom c'est ça. merci beaucoup kon xam naa yaakaar naa tableau yi euh, jeex na fi. xanaa ñun tënk rek ba xam yow ban jàngat nga am ci exposition bi. waa exposition bi xam nga tamit nit moom doomu aadama. Euh, xëy na nag ñun en général euh, exposition ñu si bëri dañ ko dul tàmm surtout ci fànn bi xew waaw ci xew-xewu même bu dee si xew-xewu diine yi sax dañ koy bëggee ci neneen noo xam ne ne du euh, tellement artistique daal waaye mais nag bon comme nit mooy li ñuy wax rek nit ku nekk ak sa gis-gis si mbir yu bari donc moo waral ren ñu indi thème bi pour que peut-être nit ñi xam ne tamit diine. lii yëpp njàngat la parce que kii mënoo si njàng loo xam ne safaan la voilà donc euh, moo da waral daal euh, ren exposition bi gën a euh, basé wu ci thème bi nga xamante ni surtout wàllu jigéen ñi la voilà wàllu jigéen ñi gën leen ñaax parce que ba léegi du gis rarement nga fi gis si exposition bi ñëwoon la góor lu dul bi bële parce que Ndakaaru doo fa gis bi jigéen voilà mais nga xool ne donc dañ lay gën a ñaax tamit ci diine wax la ne nit tamit loo mënti am lu ne ngëm-ngëm rek moo lay mën a yeggale ci euh, ak foo mënti dem daal. mais est-ce que nit yaa ngi ñëw di visiter si. bon xam nga comme euh, nit ñi tey moom tey lañ tey la ubbi alors nit ñi euh, commencé sànq doon nañu ñëw di visiter doon nañu ñëw di mais xam naa ni suba daal defe naa ne la ñuy gën a ñëw daal si exposition bi. lu bari loo xam ne ñu ngi ko tuddee forum culturel et d'information. forum culturel la ndax euh, am na vole exposition euh, boo xam ne ku ñëw am na ay œuvre d'art yoo xam ne lépp dañ ko jagleel njàngum jigéen am na itam euh, loo xam ne dafa jëm ci maam jaare yi kaamil yi ñu bind maam jaare yi nekk ci daara yi maam jaare ci poroxaan ña fa génne kaamil yi ñu bind loolu lépp ku ñëw fii da nga da nga am ci wàllu culture da nga gis loolu muy exposition waaye am na ay waxtaan ay panel ay plateau Euh, yoo xam ne ci thème yu am solo lañ koy waxtaanee fii ci màggal màggal Poroxaan gi waaye amaale na itam ay projection ndax am nañ fi écran yu mag yoo xam ne danañ ci def projeté ay film yu jëm rek ci daaray maam jaar yi ci Poroxaan euh, ak njàngum jigéen ak lu demee noonu euh, su ko defee amaale na itam ex danañ exposé itam ay produits yoo xam ne yëpp day jëm ci promotion njàngum jigéen ak promotion daaray maam jaar yi ci Poroxaan bi itam ñi ngi ko fiy fësal maanaam. ndey daara wala bàyyi daara ñi nga xam ne dañoo bëgg a jëfal yàlla ci daara ji euh, ku ñëw mën nañ la ci jox information yu doy kon forom culturel la waaye forum d'information la maanaam ku ñëw loo bëgg a xam ci daara maam jaara ji ndax li kilifa yi bëgg muy sëñ Isaaxa Basiru ci ndigalul Cheikh Mamadou Muntaxa mi jiite fondation maam jaara li mu bëgg mooy comme daara ji dafa enclavé nekkul ci péncum euh, poroxaan euh, te ñu bari suñ màggal see soxna jaara moo leen yëkkati ngir ziyaare ko nit ñi suñ masaa ñëw duñ mën a dem ca daara ja gis la fa xew gis fi seenub liggéey rawatina daayira maam jaar yi fi seenub liggéey euh, jëm moo tax mu ne nañ def forom boo xam ne ci pénc mi ku ñëw soo fa duggee lépp loo bëgg a xam ci daara ji ñu xamal la ko euh, nga gis sab liggéey fan la jëm daara ji fu mu toll ñaata ñoo fi mokkal euh, jafe-jafe yu ñu am nan lañuy def ba dugal ci kenn ku ne dugal ci sa loxo ba liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moustapha Bassirou sosoon ci 2005 mu mën a law ba euh, law ci Sénégal te liggéey bi weesuwul ja formé aw jiwu muy jigéen ñoo xam ne maam jaara lañ leen tudde ñu dajale leen ci benn barab muy daare Poroxaan di leen jàngal alxuraan waaye di def ci ñoom yarub soxna jaara jikkooy soxna jaara muy jikkooy lislaam jikko yi gën a tedd su ko defee loolu suñ ko defee ci ñoom euh, dañuy dem fañ dëkkoon di ko defaat ci seen i jaboot di ko defaat ci ñeneen ñu ñuy jàngal ndax bari na euh, ay maam jaare yoo xam ne lu ëpp juróom fukk ñi ngi jàngale tey ci biir réew mi ci ay daara yu wuute ba xayma nañ ne lu tolloog 1500 junneeg juróomi téeméer lu ko ëpp ci ay xale ñi ngi jàng ci loxo ñoo xam ne fii ci Poroxaan lañ leen jàngale bañ mokkal alxuraan euh, kon nag euh, muy forum bu am solo boo xam ne mat nañ naa fàttali ne jëwriñ Alaaji Mbàkke yu fay mooy ki nga xam ne euh, biñ ko tàmbalee ba léegi Serigne Isaaxa di ko taxawee euh, moom moo ñu daan jàppale ci naka jekk moo ñuy jàppale ci chapiteau bi nga xam ne fa lañ ko daan defee naka jekk ren jii nag euh, dañoo am loko yu bees yoo xam ne ci penc mi fi la ñuy defee forum bi waaye nag li ci aju ci matériel ay chaise ak straat ak yeneen yëm daan indi yëpp jëwriñu El Hadj Mbacké Faye indi na ko nam ko daan defee moom it sëñ baa ngi koy sant ci li nga xam ne moom it day promouvoir rek. Euh, lu baax loolu nga xam ne dañ koy def ci euh, ñi ca daara ja ngir mu tasaaroo ci Sénégal tasaaroo ci société sénégalaise bi. ndax euh, màggal dëgg la màggal li ci jiitu mooy ziyaare jàng alxuraan zikkar soxna jaare mi tax nit ñi jóg sëñ Basiiru Mbàkke mi ko taxawaloon bis bi di màggalu Poroxaan ba mu ko tàmbalee loolu la ko tàmbalee muy njàngum alxuraan zikkar rey ay gàtt berndeel doomu aadama yi. te loolu ku ne xam na ni jaamu yàlla gu rëy rëy la waaye nag euh, mbir day évoluer day yokk ku ne gis na ne ni niñ ko waxee sax mooy at yu njëkk yées suñ masaa rey ab gàtt daanaka ñi màggal si ñëpp danañ ci mën a xéewlu te te du jeex kon mooy màggal gi ci lu tuuti la tàmbulee waaye nag màgg ba fii mu toll tey nga xam ne ku ñëw poroxaan da nga xam ne màggalu poroxaan màgg na euh, euh, kon nag luy màggal di évoluer faw ñu ànd ak évolution boobu yokk ci bernde xam-xam ak bernde culture ndax nit ki soxlawul rek lekk dafa soxla ruuxam lu koy dundal euh, esprit am lu koy lu koy lu koy élever te loolu bokk na ci wàllu culture wàllu xam-xam te lii ñuy def ci forum bi euh, mooy insister kon ci aspect boobu ngir ku ñëw ci màggal gi non seulement nga siyaare soxna si waaye nag nga gën a xam soxna si ndax forum bi itam day gën a xamle soxna si gën a xamle ay jikkoom gën a xamle liggéey bi ñu koy defal te loolu jàpp naa ne ku ne am na ci intérêt ci. Euh, màggal si ziyaare waaye nag euh, dundal sa ruux ci wàllu xam-xam ak wàllu culture. waaw macha allah nit ñaa ngi ñëw di ko visiter si tey jii ci àllarba ji lañ ko ubbi. ak njàngub alxuraan moo xam ne ay maam jaare yu mokkale fii alxuraan ñoo ñibbi seen i kër ñoom lañ indiwaat ñoom ñoo wàcc kaamil ay kaamil xatmu ko euh, ci moom lañ ko tàmbalee ba fii ñu toll nii salle mi nga xam ne fii may waxee ak yéen am na conférence boo xam ne panel boo xam ne mi ngi déroulé wu ci avantage et inconvénients des réseaux sociaux mooy thème bi ndax xam ne li ñu ci jublu rek mooy xam nañ ne réseaux sociaux mën naa defar mën naa defaru bokk mën naa defar diggante mën naa tax nit mën a liggéey lu baax waaye nag am na safaan boo xam ne nit mën na ko jëfandikoo ngir féewale ay tariixa ngir féewale ay xeet euh, ngir yàq te loolu euh, lu safaanoo la ak jikko yi ñuy tu si fii ci Porokhane muy jikko yi soxna jaara moo tax ñu indi thème boobu sur les réseaux pour que nit ñi xam ne am prise de conscience ci ne réseaux sociaux waruñ ko jëfandikoo rek ngir féewale nit ñi ngir yàq ngir euh, dagg diggante yi waaye dañ koo dañ ko war a utiliser ngir mu nekk pont boo xam ne nit ñi danañ ci mën a euh, taqale diggante yi te ku ne xam ne ne Sénégal su nekkee réewum jàmm li ko waral moo di tarixa yi fi nekk ñi fi euh, taxawal tarixa yi dañoo mas a jàmmoo dañoo mas a bokkoo nekk ay bokk kon loolu moo fi indi jàmm Euh, euh, wàllu xeet it problème mu xeet diggante yooyu yëpp mësuñ koo xam kon loolu moo indi jàmm Sénégal kon nag loolu dañ ko war a préserver sàmm ko kon nag occasion yu mel nii Cheikh Mouhamadul xaar di xalif général de murit woote màggalu Porokhane gi occasion la ngir euh, loolu nga xam ne moom moom lay woote ci lay yëngatu moom lay liggéeyal diine ji di ko liggéeyal Sénégal yëpp ak àdduna bi ñu gën koo fësal nit ñi xam ko ngir mën koo jariñoo ngay tënkee. soxna jaara ñëw poroxaan euh, ñu ci bari bëgg soxna jaara moo leen di jiital waaye sunu slogan euh, ren mooy sopp ak roy maam jaara mooy sunu slogan bi ñu bi ñu fësal ren ci euh, ci ci forum bi ndax dañoo gis ne ñu baree bari sopp nañ soxna jaara waaye nag roy gi léeg-léeg mooy des kon ñuy insister ci nit ñi nañ nañ dëgëral seen cofeel ci soxna jaara nañ sopp soxna jaara waaye nag nañ ko góorgóorlu ci roy ko dëgg la soxna jaara kenn mënu koo dab ci ni ko yàlla melal waaye Cheikh Saalihu Mbacke radiyallahu anhu daana wax naan euh, am na ñoo xam ne kenn mënu leen a roy ba dab leen waaye nag jéem leen a roy dana tax nga raw sak maas doo leen mën a dab waaye da nga raw sag maas kon nag ci loolu la ñuy woon nit ñi ñu sopp waaye ñu jéem a roy soxna jaara mam bu so jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mam maaram